keroog Ousmane ibnu Affan ba muy julli ñeenti rakka Mina moom xam na opposé na xam wax xam na ni euh, Ousmane li muy def du sunna maanaam wute na ak sunna ndax yonent bi ñaar maanaam wute na ak sunna ndax yonent wax xam na ni euh, Ousmane li muy def du sunna maanaam wute na ak sunna euh, Ousmane li muy def du sunna maanaam wute na ak sunna ndax yonent bi ñaari rakka la fa doon julli. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk ñu ngi leen di nuyu fas yéene def benn commentaire rek ci audio Mor Gueye bii xam naa nag masalatu tark ma ñëw ci ndax mel seetlu naa ne mboolem li muy wax yonent bi defu ko woon ak saxaaba yi defuñu yooyu lu ci bari ci la koy aj te loolu nag xëy na ay sëriñam ku ci mel ni ibnu Taymiya ak ibnul Qayyim ak ñu bari seeni doon nga mën naa am ñu jéem koo defu dalil ak ñenn ci borom xam-xam yi waaye daal euh, duulu dalil boo xam ne bés mën a sukkandiku la bu fekkee da koo bàyyi gese ci nga bëgg a sukkandiku bëgg a tere loo xam ne alxuraan moo ko digle lu mel ni sant yàlla ci ak xéewal wala ci kaw bis sàngam ngay dàkk bis sàngam lu tax nga di ko dàkk loola defe naa des na ci ñëw ndax jullit bi ak jaamu yàlla am sañ naa dàkk bis boo xam ne ca la koy def te it sax nag bu ñu xoolee diine danañ gis ne bis ba xéewal amoon moom euh, dañuy seetlu ne yonent bi wooroon na ko woorlu ko woorloo ko ay muy bisu tam xarit te it xam yi yu mag yee mag mag dégg nañ ci ne kon bis boo xam ne xéewal am na ca dàkk bis booba defaat ca ak jaamu yàlla ngir sant ko yàlla loolu lu ñu yoonal la loolu benn la meneen mbir mi itam jullit ñi comme ni ma ko waxe woon Euh, boo demee ci Cheikh Ben Saleh ci téeram bi mu wax ne al mawlidu nabawi bi mu bind wax wax na ne am na borom xam yoo xam ne nee nañ dëppoo nañ ci gàmmu te dëppoo googu ijmaa sukkooti la ndax dañ ko doon defandoo am na jamono yoo xam ne dañ ko doon defandoo ci àdduna bi te kenn weddi ko ci borom xam yi te te bu xaw a yàgg la laa laata ñi koy weddi door a ñëw te loolu penkook sowaloon maghrib ak mashriq yëpp ñu ngi ko doon def borom xam yëpp ne fa di ko def te kenn weddiwu ko kon loolu kon wane na ne bis boo xéewal am julli ñi ci boppam dañoo dëppoo ci euh, di ko di ca sant yàlla bu del see ñuy defaat ko kon xëy na waa ji néew xam-xamam moo tax muy waxe nii muy waxe saa yoo xamee ne dugg Mor Gueye dugg na ci wàllu tegtal rek yow da ngay rus da ngay rus ñii door a tàmbalee jàng usul sax dañuy rus waxuma laa nag euh, ñi nga xam ne am na lu leen ci yàlla may kon wax yu reelu lay wax yu ruslu yoo xam ne ay xawaacid la yoo xam ne ñee teg xawaacid yooyu usuli yoo ne ñee teg yooyu xawaacid ci boppam mënuñu layal waxuma la waxuma la keneen saxaaba yi dégguñu dégguñu ci won loolu ku ci mel ni Ibnu Abbas am na dama ci joxe misaal lu bëree bëri ndax benn saxaabi yi la dafa ko doon defee itam ñu bëri ci mbooloom salaf saalih dañ ko doon def mooy loolu ñuy wax taarif maanaam bis bu arafa bu ñëwee ñu dajaloo euh, am na ñoo xam ne basra lañ doon daja dajaloo dajaloo di ñaan yàlla ka dikkar bi ko imaamu ahmad buñ ko ko laajee dana innama huwa dikrun wa du'a loolu ñaan rek ak dikkar la te ahmad xam na ne dañuy dàkk bis boobu di ko ca def kon gone yi nga xam ne xamuñu lislaam bu baax des leen a trompé jàngali leen euh, yenn xawaayid yi ci jàngaliin woo xam ne ñetti xawaayid yi amuñu ci lay yu dëgër ñooy faral di wax waxin yi moor gi di waxe waaye bàyyi yonent bi ku ci mel ni Cheikhul Yaafi'i boo demee ci téeréem bi moom nag usuul yi bu mag la da ngay gis ne bàyyi kese rek moom doonut lus mën a laye te li ci gën a xoromu mooy ñi nga xam ne ñooy faral di soow naa yonent daa bàyyi woon nangam mbirum sant yàlla defuñu ko taw xiif yi maanaam nit ki bu sant yàlla ci xéewal ñoom ñu ci bari da ngay gis ne euh, euh, nangu nañ nit ki am xéewal daal di sant yàlla te na sant yàlla itam surtout ñu mu dëppoo na mu doon amee si jamono yooyu saxaaba yaak yonte bi dama si jël am na ku ma ciy faral di jël misaal ku ci mel ni ibnu baaz gis nga sant yàlla boo tabaxee sa kër ba mu sori dinaa ko wax naa ko ci audio yu bëree bëri da gis ne dana la may nga jékki-jékki rey dajale ay nit eh, ngir ne da ngay sant te loolu kayfee boobu muy wax ak melokaan boobu amutoon ci jamono yonante kon eh, lu mat a bàyyi xel yonante bi boo këram àggeet rëyutoonum xar mbaa saxaaba yi doon nañ tabaxi kër waaye jamono jooju li ñu bari bari gis ñu ci kenn ku sa kër ak nga rayum xar wala nga ray ak gilem ba yooyu loola bu doyoonub dalil ibnu baas du mën a wax lee muy wax te li wax ji bari bari indiwut benn asar buy tëkkale la muy wax ci jamono jooju kon mbir mi sant yàlla yàllaa ko digle kay bi nga koy defee ray loolu dafa sax maanaam ray ngir sant yàlla loolu moom daa sax ci sunna ndax yonent bi mosaa tukki ba ñëw sant daan ray dara kon ray ngir sant yàlla moom dafa sax ci sunna bu dee zikkar ngay def itam wax naa ko zikkar maanaam dajaloo di zikkar ak yooyu ngir sant yàlla loolu itam sax na ci sunna mi ngi ci téere xadis yi kon sante nu li ñuy sante moom luñ mashruu la li nga mën a wax mooy bis bi nga tànn bis bi nga tànn itam nit ki sañ naa tànn benn bis bu ko neex nag waaw jëmmi bis bi itam li ma wóor mooy bu Euh, buñ delloo ci euh, euh, téere xadis yi ak ci ijmaawal muslimun comme comme ni ko yenn fuqaha yi yenn xam yi waxee ne dañ cee ijmaa danañ gis luy tegtale tànn bis bu xéwal xewoon loolu mu koy weddi rek sa xam-xam ci wàllu usul moo des waaye tamit sa xam-xam ci wàllu taarix dafa des moo waral coow lu bari li nga xam ne gone yi nga xam ne ci jàng lañ toll lu ne ñu dugg ci mel ni dañuy borom xam ñu leen diglu am ñu leen laaj ñuy ton te kii laaj kii ton doo ci xam ku gën a réer loolu dafa xaw a xorom kon bàyyi kese rek moom bu ci yemee ni ko Cheikh Yaafi waxee ci téeram ba loola doonut lu lu su mën a sukkandiku di wax ne nangam euh, wari su bu fekkee ci bàyyi gi képp la yem euh, kon loolu mën naa mën na mën naa bàyyi xel nga gis ne kon même Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bàyyi na mbir yoo xam ne kenn wërta wax ne ginnaawam wuri su koo def lu mel ni euh, bu dee yaafi bokk na ci misaal yi mu joxe ci yi nga xam ne dañ ko sopp te yonte bàyyi ko muy yeexe julli gee nee na yonte daw ko def euh, nee na itam màbbu kaaba ga ak tabax ci kaw xawaayid yi nga xam ne ci la ko Seydina Ibrahima bàyyi woon nee na boobu ci la bokk euh, am na yeneen yum lim tamit yoo xam ne xëy na bàyyi na ko tayit euh, teewul ñu sopp ko ndax nee na yonent bi julli yoor yoor daw li gën bari ci waxtoom daw ko saxal li gën bari ci ay waxtoom te teewut ku ne xam na ne saxal ko loola moom euh, lu ñu sopp la kon bàyyi na koy kese gis ci mën a sukkandiku rek ne nangam daa aram am na sax yoo xam ne mën naa war yonent bi bàyyi ko ngir dara comme par exemple xaadisatul ifki Euh, yonti bi euh, jëtan alxadd defu ko woon ci munafiqoon yooyee munafiqoon yooyee nga xam ne leer na ne ay munafiqoon lañ ci xaadisatul ifki yonent bi taxawalut ab xadd ci seen kaw te pourtant iqaamatul xaddi waajib la xëy na la tax mu def ko euh, looloo tax kon yonent bi bàyyi na ko nangam te tekkiwu ne koo xam ne daa xas ab ab jullit bu jigéen wala loolu teg tegtaliwu ko kon bàyyi na koy kese dafa mat di teelu te it loo ko waxoon ne ko aadil yaa Muhammad fa wallahi ma uridu bi hadihi al qisma kooka jamono ji ku ko yu bari dañuy wax ne da ngaa murtat waaye taxul yonent bi euh, teg ko géttanub rëdda ak yeneen ak yeneen bàyyi yi ak kufaar yi ci génnewu leen ci jaziratul arab ak yeneen ak yeneen yu bëree yoo xam ne dañuy ñu bëri dañuy gis ne dafa war euh, te boo xoolee usul waxuma nag usulu gaa yi nga xam ne mooy kuréel bi may wax ñama xam ñu ci bari doo dégg ñu tudd tarku ci seeni mbir comme ni ko yaafi'i waxee nee na ahlul usul qad xasaru dalalaati taxrimi fi thalathati umur laysa minha tark nee na liy tegtale ak araam usul yi yoon yi dañ ko takk ci ñetti mbir te bàyyi la koy kese moom bokku ci benn mooy annahyu anil fi'l mooy tere ñu jëf wala bu tahrim ak baat boo xam ne day tegtale ak araam wa zammul fi'li ak ŋàññi dara loo xam ne suñu borom ashari am moo ne nangam baaxut wala mu indi baat boo xam ne baat la bu buy araamal wala mu tere ku def nangam wala mu tëkku loole loolee ne ku def nangam des na la mbugal euh, li usul usul yoon yu bari doo gis ñu ñu boole ci at tark kon day daal teqale ne euh, euh, ñooña boolewuñ ko ci kon sunna itam da ngay gis ñu séddale ko ci jëf sunnal qawliya ak sunnal fi'liya ak sunna taqririya waaye sunna tarkiya moom usul yooyu bari duñ ko ci boole loolu moom amul ci sunna kon loolu day wane rek ne mujarradu tark euh, nga xam ne da koo bàyyi gese nga xam ne yonent bi da koo bàyyi waaye gisoo luy wane ne bàyyi gi daa aram loola bokkut ci li nga xam ne usuli yoone yu mag yee mag a mag ñu ci bari dañ ko ci limaale euh, ba léegi itam ni Yaafi'i wax foofu nee na bokk na ci li tegtale ne atarku dub dalil mooy al adillatu shar'iyya dafa day tegtale ne lu ñu bàyyi loo xam ne dañ koo bàyyi dañoo euh, dañ koo jéggale ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ne maa fi kitaabihi fa huwa xalaalun wa maa xarama fa huwa xaraamun wa maa sakata kon mu ne loo xam ne yàlla araamal na ko lu yàlla daganal ci ab ci ab téeram loola dagan na lu mu araamal itam araam na lu mu noppi nag loolu dis koo jégli euh, bazaar nett li na ko ak xaakim xaakim tamit wéral la ko ñu jële ko ci abu abu darda yàlla itam bokk na ci tegtal yi nga xam ne yaafee yi indi na ko di wane ne bàyyi kese rek du ab dalil nee na sun borom dafa wax ci alquran ne wa ma nahaakum anhu fantahu li leen yonent bi tere bàyyi leen ko bu fekkoonte ne eh, yonent bi bàyyi ne koy kese rek ab dalil la eh, kon alquran ne wa ma nahaakum anhu aw tarakahu fantahu ba léegi itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma nahaytukum anhu fajtanibuhu lu ma leen tere bàyyi leen ko waaye waxut nag ne wa ma nahaytukum anhu aw taraktuhu fajtanibuhu loolu yonent bi ko kon kii wax ne tark kese ab dalil la kookee moo war a indi ab dalil yow mi na tark da koo bàyyi wala nangam ak nangam meneen mbir mi itam mooy ñu baree bari ci saxaaba yi ak salafu saalih te mën naa ciy lim lu dul jeex man masoo naa ko fii lim sax ci bu gudd gudd def nañ ay mbir yàlla ak ay sikkar ak ay yeneen yoo xam yu baree ne bi da koo bàyyi woon am na ci yoo xam ne sax jamono saxaaba yi saraf def nañ yoo xam ne jamono saxaaba yi sax dawut am mais saxaaba yi ci boppam dañoo def ay mbir yu baree bari ibnu Umar ak ibnu Mas'ud ak

ñu war a a julli ñaar rakk ama timis dafa wax ne Ibrahima Naxaay daa wax ne inna Abaa Bakrin wa Omar wa Ousmane dafa wax ne Abubakar wa ko julli dafa wax ne law saxa lama kaanat fii xujja dafa wax ne waxam jooju bu wéroon loolu aw lay néew ci li annahu laysa fiihi annahum radiyallahu anhum nahaw anha anhuma ndax tegtaliwul ne Abubakar wa Omar dañ ko daan tere defuñu ko rek kon tark daanaka du lu am solo loo xam ne jamono yu nit ki gaa yi defuñu woon dara lay bëgg di laye di koy jamono yu ne mu di ko wax nga xam ne yëppam nangam xewoon na te di koy sudoon nangam yooyu rek daanaka layam yëpp ci la ko aj aj te loolu du doow lay mu ne wa dakaru an Umar annahu qaala maa raaytu ahadan yusallihima nee bokk na ci ñi ñi eh, ñaar rakk yi ñaar rakk yooyu sax nag ñun anduñu moom coo xam jooju waaye eh, alqaida al usuliya moo bi muy wax moo moonu ñor noonu mune ma raaytu ahadan yusallihima neena amna am na ñoo xam dañ ne ibnu umar neena musuma gis ku leen di julli wa aydan fa laysa fi hadha law sahha nahyun anhuma neena li bu fekkon ni wërna na sax tegtaliwu ne dañ ko tere wa nahnu la natruku tak at tatawuci ma lam yunha anhu maanaam nag loo xam ne tatawuc la ñun duñ ko bàyyi fek gis ñu li wane ne des ko des ko tere نانيت وأما حديث علي فلا حجة فيه أصلا لأنه ليس فيه إلا إخباره بما علم من أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم صلى الله عليه وسلم حديث علي تم نانا لولو أو ليني وش نخ ليش نك لبر مو مستقس وننتبه دلين جلي تنانا وليس في هذا نهي عنهما ولا كراهة ولا كراهة لهما وما صام عليه السلام قط شهرا كاملا غير رمضان walaysa hada bi muujibi karahiyati sawmi shahrin kaamilan tatawaan nee na loolu ab dalil niwu ci ndax yonent bi musta woor wenn woor mu wumat wudul ramadan te loolu tekkiwut ne dañuy tere rek nit woor aw woor waneen weer wudul ramadan mu mat ngir euh, jaamoo ko yàlla kon lii nga xam ne ak tarku dana ko ko tegtale kon xëy na mooy dagan rek dagan gu bàyyi la yonent bi bàyyi euh, dagan léegi nag loola yonti bàyyi dañuy xool bu fekkee gis nañ ne war na boobaa day day war bu fekkee loola yonti bàyyi gis nañ ne léegi des ko sopp ndax jamono ji ñu nekk manis na ko sopp mbaa leneen boobaa des koy sopp bu fekkee lu dagan la day daal dagan bu fekkee itam lu sib tegtal yi wane na dañ koo sib euh, loola dañ koy sib bu fekkee tegtal yi wane na daa aram loolu day aram euh, waaye nag bàyyi kese rek moom du tegtale benn ci at yi juróom moom loolu bàyyi kese du ko teg du ko du ko tegtale loolu lu mat xam la yonte bi bàyyi na koy kese moom du tax mu dagan mbaa mu aram mbaa mu laneen bu fekkee foofu rek lay am kon ñenn ñi dañuy dañ léegi indil yenn wax borom xam lu mel ñu indil ibnu samaani nee na la bu yonte bi bàyyee nangam day aaji ñu war ko caa topp ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon nañ ko mbët jëlu ko mu nangu ko nangu koo lekk ñu bàyyi ko eh, yooyu du ay tegtal Euh, xadis bi ci boppam aw lay la seen kaw tegtalewul ndax bu fekkoonte ne euh, bàyyi gi ko bàyyi loolu day doy ngir ñu war koo tere kon kon duñ ko laaj atte kon dañ koy daal bàyyi directement ñu koy bàyyi directement voilà looloo tax yooyu addil kenn mënu cee euh, teg tegtalu ne ne maanaam ko moom du du du ab loolu itam lu mat a bàyyi xel la loolu lu mat a bàyyi xel bu ko defee nag màggal moom sax day beneen affaire moom day mbir moo xam ne sax moom daa yombut da du tark kese day mbir moo xam ne yow achariya da koo yoonal muy sant yàlla ci ak xéewal am yeneen dalil yu yuy tegtale nag ne moom bis bi xéewal gi amoon euh, def ko ca moom am na lu koy tegtale ndax buñ fàtte ne al qiyaas usul yi wane yi dañoo wax ne al yi kama yasbutu bin nas loolu usul yi yéen wax kon dañ koo xiyaas ci euh, mbirum tam xarit xam naa Mor Gueye ne xam dafa dafa bëriwul moo tax mu defee ne euh, moom normalement bu loo loolu mënoo caa xiyaas nangam xam naa mbirum manaat ak mbirum illaaj yooyu yëpp xam naa dars lay doon ci bu bees dafa mel nag ñu bëree bari ci gaay yi dañuy réere lu bëree bëree bëri dañuy xam rek ay ay sëriñ wala ñi nga xam ne dañoo wax ci usul am ay am xawaayit yuñ teg te xawaayit yooyu ñu teg mënuñu koo layal nga xam ne doonte xawaayit usul yi lañ koy tudde di ko jàngale ci seen téere usul wala yooyu waaye waaye amuti lay ñu defee ne loolu moom diine la euh, loolu moom mooy li xew